la ñu ciy dalal du gan ci kër gi ñu war a waxtaanee loolu muy doomu dakaar di aussi ku ñu mën a wax ci dakaar démb. yàlla def ay bés bi ñu génn mu amaloon ci ab ndaje euh, boo xam ne ci euh, waxtaan wi la tënk woon Abdou Khadre d'abord ñu nuy la dalalaat la jàmm ci démb ak tey. waaw maa ngi lay fay Fatou Thiam euh, di la seedeloo comme d'habitude sama mbégte ci ñëw ci sa micro bi waxtaan ak yow à travers yow ñu waxtaan ak askan bi. sujet bi nga tànn nag sujet bu am importance la parce que actualité la donc pare naa daal pour ñu waxtaan ci ñaan yàlla mu barkeel. amiin kon Abdou Khadre ni ma ko waxee statut spécial bi ñuy euh, xëy na waxal Dakar jamono yi euh, ci la waxtaan wi dana tënku d'abord yow en tant que njiital ONG bu mel ni EMAD bi nga déggee mbir mi ban yëg-yëg ak ban gis-gis nga ci am. waaw yëg-yëg bi ak gis-gis bi mooy gis-gisu surprise d'abord ah bett na ma. naqari na ma mm, jur na aussi ay regret ci man euh, surtout par rapport ak yaakaar bu tas ci ñenn ci suñu kilifa yi fa nga xamante ne foogoon nooñ fa seen xalaat ak seen yëg-yëg ak seen yéene ci askan bi àggoon na fa mbir mi dafa mel ni daf ñu woon ne tolluwaay boobu ñu leen jox ñoom tolluwuñ fa te soo yëgee ci sa kilifa mu mel nii daf la yàpp wala daf la xeeb wala da nga ko ñorul yow ak say mbir te xalaatul lu dul boppam ak ay intérêt politique ay intérêts yi nga xamante ne c'est des intérêts de parti des intérêts de groupe par rapport à son avenir en tant qu'individu ou en tant que groupe ou détriment de l'avenir du grand groupe que constitue la nation sénégalaise et le peuple sénégalais yaakaar bu tas lay doon euh, d'autant plus que wala parce que mbir mi recul la day nekk recul ci fànn yu bëri recul ci wàllu démocratie recul ci wàllu euh, décentralisation recul ci participation des communautés au développement parce que nag fi àddina bi toll yaakaar nañu ne xalaat bi mooy moins d'état na ko Abdou Diouf doon waxee pour avoir mieux d'état parce que moins d'état mooy jël mbir yi wala lenge yi delloo ko askan bi nga xamante ne moom moom te nag am na sax boroom xam-xam yu doon wax ci jamono su àddina doxee su demee ba àgg ca col la ba nga xamante ne fa la ñu bëgg mu àgg su fa àggee état bi dafay dépérir Karl max dans sa théorie du communisme il dit que su demee ba àgg au sommet état si boppam dootuñu ko soxla et soo xoolee dans la commune primitive en Afrique état amul woon les premiers groupes empire yi nga xamante ne am nañ ko fii état bi xam nga la doon gérer le commerce avec l'extérieur mais la gestion en interne de la république citoyens yi am nañu organisation ak éveil bu toll ni jaratul état ñëw di arbitrer. mun nañ ko organiser jaratu ko parce que état njëriñam mooy jàppale askan bi mais état boobu su dee mu ngi organiser na mu war organiser mu ngi doxalee na mu war mu ngi mel na mu war mel mais chaque fois de plus en plus dafay delloo pouvoir bi askan bi nga xamante ne moo ko jox. loolu mooy décentralisation soo xoolee am na benn kilifa politique bi ko waxoon. mu ne état dañ ko yent ëmb te ëmb bi dafa rëy ëmb bi dafa diis te soo ko bàyyee ci seen loxo kese mën na jur jafe-jafe pour réew mi mi mën na jur sax jafe-jafe ci ñoom ndax diisaay bi ne décentralisation nag mooy lan mooy dañuy yenn ëmb bi def ko ay pàcc ku ne jël ci loo àttan comme sax mu gën a woyof ci boppi état population bi tam participer participation bi nga xamante ne bu leer la loolu dafa war jëm kanam dafa war di yokku wante warul jëm gannaaw warul jëm kanam pourquoi en 1887 déjà Dakar amoon na maire ba avant 1887 avant tubaab bi di ñëw kooku c'était en 1857 dafi tubaab bi ñëw mais avant tubaab bi ñëw organisation interne bi ñu amoon ci biir Dakar aussi noonu la tëddee woon parce que soo xoolee communauté lébu nu mu organisé woon lépp dañ ko décentralisé woon tubaab bi ñëw indi décentralisation ci mode démocratique ba nga xamante ne moom la ko woon nous étions en colonisation mais déjà en 1887 fal nañu maire maire yu bëri jaar nañ fi ay maire tubaab ay maire métis ba ñoom Blaise Diagne ñëw ba ñoom euh, Lamine Gueye ñëw et cetera donc euh, ndakaaru gii nga xamante ne moom la ñuy wax ba ñu créer fédération euh, Afrique. occidentale française AOF ah dakaar moo nekkoon capital bi gouverneur général am fi palais bi ñu demee ba indépendance bi am ñu def fédération du Mali dakaar moo nekk capital bi Sénégal ba mu demee ba moom boppam itam en 1960 ñu def transfert capital bi jëlee ko Ndar indi ko Dakaru mais dakaar mu ngi doon joué rôle boobu mu doon joué te foofu am na lu ñu fa mën a nettali te c'est important. capital ba mu nekkee ndar ñu war a dem indépendance dafa am ay mag ak ay kilifa lébu yu daje ñoom seen bëgg-bëgg moo doon ndakaaru des ak France ñu bind benn lettre bu bataaxal général de xamal ko ko ne ko de Sénégal dafa bëgg laaj indépendance mais dakaar dafa mbësa moom boppam ci biir Sénégal kon boog dañu bëgg Sénégal amee indépendance ndakaaru continué ànd ak yow Mamadou Dia yëg loolu daan ne risque bi mooy Sénégal dina am indépendance am sans Dakar et le Sénégal sans Dakar dina xaw a doy waar mu def transfert capital bi li muy xalaatoon foofu mooy ne su ma jëlee capital bi indi ko ndakaaru officiellement kenn mënul jox Sénégal indépendance am sans capital projet boobu noonu la ko coupé court kon boog ndakaaru dafa am benn position stratégique bi mu am ci àddina bi d'abord am ko ci Afrique am ko ci Sénégal ci àddina bi pourquoi xam nga ne Carrefour la ni ko Léopold Sédar Senghor di waxee ci poème am ba mu ne c'est une main tendue vers l'extérieur comme pour dire au monde je vous salue moo tax bi commerce triangulaire bi amee bu tubaab bi commencé wër àddina di coloniser di noot di duma fii la defoon Carrefour Senghor wax la ko ba tàyyi ci ay poème ndakaaru am na beneen mbir bu ci am euh, xam nga boroom xam-xam yi nee nañu Ablaye Gueye moomu ko njëkk a nett li maa koy saluer en passant mu ne jant bi dafa su amoon tànk am na fu mu teg tànkam ci àddina bi tànk boobu ñu ngi koy ooyee le pied du soleil le pied du soleil se trouve dans la presqu'île du Cap-Vert. Ce pied du soleil-là, c'est le seul endroit au monde, semble-t-il, où il fait véritablement midi quand on dit il est soo taxawee foofu da nga gis li olof di wax ne tàkkandeer ngemb na boromam xam nga dañ ne à midi. Mhm. l'ombre se cache sous les ombres sous les objets. Mhm. yu koy projeté mais soo toogee fi pied du soleil bi nekk foofu amul sax ombre c'est le seul endroit au monde où il fait midi vrai quand on dit qu'il midi beneen midi bi convention la pour que nit ñi mën a bokk waxtu mën a dem mën a ñëw loolu fii ci ndakaaru la nekk particularité la te pied du soleil boobu avion yi naaw bateau yuy dox yépp bokk na ci leen di orienté waaw kooku boroom xam-xam yi wax nañ ko mais xam naa dinaa ci gën a gëstu suñu ñëwee ci sujet boobu nag loolu daf lay won rek place u Dakar ci àddina bi place u Dakar ci Afrique wax naa la Afrique occidentale française bi ñu ko sosee Dakar moo doon capital bi moo tax infrastructure yi nga xamante ne Dakaaru am na ko réew yu bëri amuñu ko woon moo tax ñii di comparer dak Dakar en parlant de statut spécial naan dañuy roy yeneen dëkk dañu war xam ne ba Dakar di dugg ci modernité bii nga xamante ne moom la ñu yóotu ñu ñëpp dëkk yooyu ñuy wax ay village la ñu woon. moo tax ay Sékou Touré au fii Boigny ñëpp fi la ñu jàngee parce que université njëkk yi fi la nekkoon hôpital yi fi la nekkoon. fii teel na am port parce que wax naa la ne Carrefour la woon donc Dakar bi Sénégal di jël indépendance am fekk na dakaar am déjà le visage moderne bi ñu ko xamee bi ñu amee indépendance nag décentralisation di wëy. ñu koy renforcer bien sûr y a eu des ci biir décentralisation yi dégg naa benn boroom xam-xam buy wax di souligner parenthèses yooyu pour un peu justifier euh, le statut spécial bi ñuy bi ñuy wax nii mais ce n'est pas une raison parce que l'exception n'est pas la règle bi ñu ñëwee ba en 96 ñu approfondir décentralisation boobu tey jii li nga xamante ne moo ñu waroon mooy évaluer décentralisation bi évaluer acte 3 bi xool naka nga ñuy gën a renforcer nos villes naka la ñuy gën a renforcer no territoires parce que àddina tey bi foo dem ci àddina loolu la ñuy wax mooy population yi dañu war a moom seen bopp population yi dañu war participer ci participation bu leer ci liy jëmale réew mi kanam fii yàq amuñu une participation effective réelle et encadrée de populations développement lu ñuy seen rek la wante duñ fa àgg moo tax tey en 2020 suñu toogee dégg ay nit ci réew mi ay kilifa yu ñu respecté jox leen cër yaakaar leen yaakaar seen xam-xam wax wax bu mel noonu daf ñuy yéem su fekkonte ne sax nag xalaat bu ñu teg la ndax nag nit mën na xalaat nga xalaat ne kat lii kat ah moo gën mais tegal xalaat bi ci taabal bi. ñu waxtaan ci xool ko mais doo tëb tëb tëb tëb rek ne dama koy proposer donte chambre de proposition la. Mm-hmm. am na xalaat des des réformes majeures. su am ci réew du chambre de proposition doy ci. Mhm. dañuy def large concertation waxtaan déglu askan bi. Mhm. su ko jaree. waaw su ko jaree waaw référendum su ko jaree te nag nag bii jaru ko parce que dellu gannaaw la ci lu leer. collectivité lébu dajale nga ci euh, ñu am solo ay bés bi ñu génn maa ngi koy wax sànq ci ndaje mm-hmm. xëy na ngir xalaat ci lu nimel ñoom ban gis-gis lañu ci am ñoom ñi nga xam ne Dakar daanaka ba dara dul dara ñoom la woon. waaw en vérité daje gu ñu ak collectivité lébu bi daje keroog bi am na nag na ci collectivité lébu bi ñu participer ay jàmbur jàmbur yi ñoom ñooy les députés de la collectivité lébu ay chef de quartier ci ndakaaru teewoon nañ fa ay kilifa yu mag ci ndakaaru yu nit ñi di déglu seen kàddu ñu nga fa woon mais on avait convié tous les partis politiques. Hein? parce que soo dajalee Dakar kese day mel ni lébu yi la alors que on parle de Dakar bien sûr les lébu sont les populations autochtones mais Ndakaaru ba mu nekkee capital de l'Afrique occidentale française si lu nekk bunt bu ubbeeku ñëpp ñëw hmm? communauté guinéenne bi ñëw communauté malienne bi ñëw communauté libano-syrienne bi ñëw ñoom ñëpp communauté boo ci dem diñ ci fekk ñi nga xam dañu naan suñu maam moo fi juddoo woon maam juddoo fi baay juddoo doom juddoo fi ñëpp ay Dakar waa lañu moo tax bi ñuy def jataay bi ñu ne nañ o ñenn ci Ndakaaru o ñenn parti politique yi oo aussi les populations ñu waxtaane ko mais li fa génn mooy ne mbir moomu kenn nanguwu ko amul kenn ku fa àddu ku ko rafetlu wala ku ne nañ xaar dañu ne d'une même unique fois nañ bañ parce que mbir mi dafay niroo këppatal këppatal mooy li nga xamante ne askan bi moo ko moomoon nga jël ko toxal moomeel boobu yóbbu ko feneen te décentralisation mooy jël ci li population yi jox président delloo ko askan wi kon li jib foofu mooy loolu mais li ñu décidé mooy incha allah on va rencontrer la collectivité lébu grand sëriñ ak ay kàngama ak jàmbur yeex chef de penc yi wax leen ne ñun de d'accord ñu ci lii te dañu bëggoon ngeen xalaat ci wax ci lu biir ne yéen it d'accord lañ ci parce que luy delloo gannaaw ndakaaru la te duñ ko nangu beneen mbir ba nga xamante ne feeñ na mooy rupture d'égalité bi muy créer entre les citoyens de ce pays comment tu peux imaginer dans une république mu am ay villes yu ñu ne yéen da ngeen di nommer seen maire. yéen moom seen bopp. yéen a leen seen maire ñenn ñi ñu ne leen moomu leen seen bopp. dooleen leen nommer seen maire c'est un autre danger. beneen danger ba nga xamante ne dégg naa benn expert bu ko wax mooy ne tey jii crise ba am Casamance ñenn ñi dañu ne Casamance dafay laaj indépendance. parce que boolewuñ ko ci réew mi te participation ëpp na nuñ ko ci boolee kon nañ laaj indépendance mais y a des modérés là-bas qui disent que non bu ñu laaj indépendance nañ laaj tout juste un statut spécial am na yenn capital ci réew mi depuis des décennies ñu ngi réclamer statut spécial mais statut boobu am na ñu bëri ci réew mi rafetlu wuñ ko ñu mel ni man parce que réew mi dañ ko bokk war a renforcer sentiment de communautaire boobu ne réew mi benn la dañ ko war ñaw après sax soo bëggee mën nañu ñëw ci njaajaa njaay mm-hmm. naka la ko ñawee woon ak naka la tubaab bi roccee ñaw bi ak naka lañ ko war a renforcer waat loolu su amee nga ne ok nañ jox Dakar statut spécial avec ah, statut spécial fort bu mu nekk mais ces autres là vont réclamer leur statut spécial nga jox Casamance statut spécial am selon ko bëggee parce que dañ koy discuter ñoom ñooy décider wax naka la ñu bëggee statut bi Touba laa ji statut spécial après après tous les autres villes du Sénégal vont aller dans le même sens fan la république bi di dem. tasaaroo. fan la état bi di dem fan la nation bi di dem alors que dans l'hymne national du Sénégal dégg nga Senghor lu mu wax. Mm. un pays sans couture. ñaw bañ koy ñëw sax bu ñaw bu feeñati nañ ko ñaw ñaw bu rafet ba bu ñaw bu feeñati mm. ñu nekk benn na ganaar gi boofu ay cuujam mm. te cuuj yëpp nañ dugg ci suufi yi laa fam bu ñu xam ne ganaar gii mooy suñu ndey c'est ça lu hymne bi di wax kon ñooñu dama leen di invité déjà nañ dem liiraat hymne national du Sénégal hymne bi ci boppam moo leen di wax ne lii ngeen di wax baaxul ci réew bi j'ai évoqué tout à l'heure Ndiadia Ndiaye Sénégal ay royaume la woon ñu tasaaroo bi Ndiadia Ndiaye ñëwee dañax may sawali jon ñu waxtaan le Grand Jolof est né le grand Jolof boobu mooy ndeyu nation Sénégal bi tey waaw Kayoor Bawol Siin Saalum Waalo Bund ñoom ñëpp ñu joxante loxo créer le grand empire du Jolof ñu jiital Njaajaan Njaay empire bi prospérer prospérité ba nga xamante ne avec le commerce euh, du travers le Sahara yéem na àddina moo tax jolof googu mooy ndeyu Sénégal tey jolof googu moo waral bi Sénégal amee indépendance suñu suñu suñu ethnie yi fi nekk yëpp mën a déggante seen biir jorof boobu moo def la wolof nekk une langue partage par tout les communautés tubaab bi bi muy ñëwee gis ne mënuma coloniser nii tant que ñu ko joxante loxo la stratégie c'était quoi naa leen tas en quoi faisant mu dugal xaalis l'argent divise mu dugal sàngara dugal fetal dugal poudre à canon on était dans une paix combat yi ñu doon mëne pour xeex demeewuloo ni ko tubaab bi gisee mais loolu yëpp tax ba féewaloo commencé juddu ak jaxase bi ñu leen di jaxase kayoor damma damel moom boppam Koli Tengal a jug Fuuta ndax ay fetel ab armée attaque attaqué Fuuta moom boppam waalo dem Siin dem Saalum dem le Grand Jolof tas li mhm. Grand Jolof tase tubaab bi ne ok c'est bon maintenant je peux coloniser di jël benn par benn ñoom la ñu coloniser mais bi Sénégal amee indépendance am ce sentiment national la mhm. bi Grand Jolof créé woon mu ngi fi woon ba tey et looloo permettre ñu mën joxante ko nekk benn on a benn benn benn benn benn benn benn biir ba nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk surtout déjà le wolof qui était parlé par tout le moo tax ñenn ñu bëri ñuy wax di attaqué ah wolof yi dañu foog ne xamuñu cosaan bi mais c'est pas une faiblesse c'est une force mm-hmm. que ñu am benn làkk bu ñu boole mm-hmm. mu nekk une langue vivante et dynamique mm-hmm. parce que soo xoolee bon kooku beneen affaire mais pour dire que cette loi ce statut là si ça passe Euh, dafa mel ni fa tubaab bi jaaroon Grand Yoff pour tas ko moom ko ñoom fa la ñu bëgg a jaaraat pour tas réew mi moom ko nañ dugg dans l'histoire ñu revisité ko. waaw parce que bu jàllee dakaar xëy na ñeneen ñi doon wax statut spécial dinañ am ah doole. bien sûr waaw dinañ am dëgg sax. bien si on peut le faire la capitale. Ah pourquoi pas ak. bien que ñoom déjà nee nañu. Euh, bon ça concerne Dakar. Thiès Saint-Louis Touba kërën kërën am na ñu wax ne nag c'est politique gëmaguma ko j'attends que ça soit clair mais niru na ne c'est politique parce que soo xoolee ville yi ñu tudd ñoom ñëpp mooy ville yi nga xamante ne politiquement dañ fa am problème parce que euh, les capitales de région souvent la contestation fa lay bëree warul naqari benn pouvoir kooku c'est c'est une situation naturelle partout au monde foo dem parce que dialogue bi échange bi contestation boobu ça se cristallise au niveau de la capitale du pays mm-hmm. et au niveau des des, des capitales des régions donc loolu bépp pouvoir bu ku yor réew mi ku ne attends à mm-hmm. cela et loolu c'est une dynamique qui permet de poser des pas en avant sur le chemin de la démocratie de la décentralisation et du développement c'est la la contestation aide le pouvoir mm-hmm. moo tax man ma ne sama gaañ yi ñenn ñi bi doon wax non lii soo ko waxee day mel nii da ngay contre régime bi ma ne non attends j'aide le président. Mm-hmm. ñu ne li ñu lancé ballon de sonde la. ballon de sonde lu muy xaar. pour recueillir opinion nit ñi. Mm-hmm. mais je donne mon opinion. et ñoom ils oublient que aider le président c' est pas toujours nekk fa di ko tàccu. aider le président c' est pas toujours nga li mu wax nga ne gongo su ne ñuul na nga ne kukk mu ne weex na nga ne tal souvent c' est pas aider président mm-hmm. mais aider le président c' est. lui faire parvenir la clameur populaire bu ko ñenn ñi dina nëbb mooy nga won ko li bëtam gisul jottali ko lu noppam déggul mu xam ne kat lii mooy bëgg-bëggu askan bi mu wéy ci bëgg-bëggu askan bi parce que président nag du conteste du du du du politique kese renforcer ce pouvoir politique wane ne man maa yore majorité bi elle est avec moi je fais ce que je veux parce que la président aussi doit gérer le désir de la minorité et faire esprit de créativité pour un président de la République, c'est avoir une capacité d'écoute. bàyyi la démocratie exercée wu moom la ñenn ji wax raison ñu ne non non on veut à travers cette loi Euh, problème yi nga xamante ne capital bi mu ngi koy am toujours parce que si le maire n'est pas de même coloration politique. joxe exemple Khalifa Sall sax xëy na jëm fi bëggoon def yëpp te état ànd ci woon. waaw ma leen waaw su fekkee ne loolu la régler leen noonu problème yi am assemblée nationale où les députés se donnent des coups de poing et s'insultent nañ ko tëj hmm? pour contradiction boobu jógee fa bon nos magistrats sont sont sont jugés par la qui disent que la justice sénégalaise n'est pas tout à fait indépendante nañ régler problème boobu en fermant les tribunaux dans nos routes toujours il y a des accidents de plus en plus graves de plus en plus sanglants mais on ne ferme pas les routes parce que la contradiction fait partie de la vie la contestation révèle le dynamisme de la démocratie donc su amee contentieux entre le président et le maire de la ville mais euh, euh, jongante boobu day tax ku nekk gën a góorgóorlu normalement et chacun voudra faire plus et mieux que l'autre pour que population yi bés bu ñu lay war a sanctionner ñu sanctionner le positivement donc on ne doit pas craindre ces ces contradictions c'est inhérent à la vie la vie s'accompagne toujours par des contradictions mais doo ne bon puisque contradiction am na rek damay nangu di population bi moom moom jox ko président mu koy nommer mais toujours président am am différent avec un Mais souvent, chez nous, on règle ces problèmes-là en limogeant le ministre. Ce n'est pas toujours nécessaire. Il est bon qu'il y ait de temps en temps des contradictions entre le président et le ministre. Ok, c'est le dynamisme et l'ambition des uns et des autres qui montrent que ce ministre-là a de la personnalité. moo tax personnalité mu bëgg ko ministère am et souvent mu am conflit entre lui conflit bi nag ça ne signifie pas que dañuy dóorante kurpeñ wala dañuy saagante wala dañ koy étaler sur la place publique parce qu'il des, des, des, contentieux et des conflits. Souvent dans nos pays, on veut les régler de, par l'arbitraire, par la force, hein, en disant que bon, la majorité, puisque euh, elle a raison, elle doit faire taire toutes les voix. C'est pas bon. bés bu kaddu yëpp noppe bés bu kenn waxatul ak président je crois que c'est la fin de la démocratie et de la république donc keroog ba ñu dajee wax nañu ne dinañu seeti collectivité lébu bi wax ak grand serigne moom lañu njëkk a seeti pour euh, mu àddu wax ci mais dinañu seeti yeneen communauté yi fi nekk te bokk ak ñun Ndakaaru dinañu seeti aussi les chef de parti waxtaan ak ñoom demandé leen que ñu àddu ci mbir moomu mais puisque ballon de sonde la man am naa yaakaar ne euh, président ak ñi ko xamante ne ñoo nekk moom ñi ci ëpp ay borom xel lañu ñi ci ëpp euh, bëgg nañu réew mi te su ñu demee boo war a tranché il vont trancher dans le sens bi nga xamante ne moom la ko communauté yu bëggee moom la ko waa Ndakaaru bëggee parce que gënuma leen xereñ gënuma leen ëpp leen gis-gis xëy na rek ñoom lenn li leen mën a gëlëmal mooy seen euh, esprit de partisan bi nga xamante ne moo ne ci ñoom mais lu tax ñun ñu war a àddu nag pour euh, myopie boobu dëñ bu ñu gis ne lii daal du njëriñ bu jéego jëm kanam mais jéego jëm gannaaw la te warul benn doomu aadama warul benn réew bu yóotu développement. ñu dem démb tuuti Abdou Khad bi ñu daan tànn meeru Dakar lébu yi nga xam ne wax naa ko sànq euh, balaa dara di dara ñoom ñoo nekkoon ndakaaru ku fi ñëw ñoo la xajal comme ni niñ koy waxee souvent ban euh, influence lañ amoon ci maire bi ñuy tànn est-ce que amoon na dëgg-dëgg euh, une façon bu ñu ci doon dugalee seen loxo bu baax. oui souvent parce que ku leen amul woon sax doo dem. ku bëggoon falu di fexe ba bu ñu ngemb la waxuma sax si maire yi même président Senghor bi muy demee ak euh, Lamine Gueye keroog Ndiaga Samb mu ngi ko doon nettali ci benn conférence bu ñu amoon ba euh, euh, Senghor tàqali ko wax Lamine géey bëgg weex boppam il a fallu que mu wéeru ci lébu yi parce que même ku bëggoon jot réew mi su la mag yi ngembee tu as plus de chance on dit que kii euh, Blaise Ñoxor Diagne bi mu demee ba bëgg am ambition politique bi mu am ci dem la ñëw waxtaanaax maam Ablaye Gueye suba mar mu ne ko demal te nga déglu ma mu dem topp ne ko bul def dara nag te waxaguma la maam Ablaye Gueye suba mar dajale ndakaaru waxtaan laa ne kii suñu jarbaat la ba ñoom ñëpp ñu décidé ne ok dinañ ko jàppale ñu samp ko nag jox xare bi ko mu yóotu jot li mu doon wut ci wàllu mairie bi ci wàllu député gi donc ndakaaru du ñu amoon kàddu ci réew mi te ñi fi nekkoon ñëpp ba tubaab ba waxuma sax bi ñu amee indépendance mais depuis tubaab bi tubaab bi pour mu am euh, mën a conquérir tout ce qui il fallait que mu nekk en paix avec les lébu moo tax ñu ne lébu yi musuñu leen moom parce que xeex tubaab bi xeexul ak ñoom ci fetal pour jot leen dafa négocier ak ñoom ñu signé traité de paix ñu yore seen euh, dox seen coutume di dox tubaab bi am da mu yore di ko doxal donc tubaab bi sax fexe na ba juboo ak ñoom ba Dakar ak ñoom pour que nekkam fi mën a yéwén ñi fi nekkoon ñëpp démb ak barki démb Senghor waxuma lébuy mais mag yi newoon ci réew mi yëpp la la amaloon jàmm ah gis nañu digganteem ak sëñ Fallou. Hmm, gis nañu digganteem ak mag ya nekkoon Casamance. gis nañu digganteem ak mag ya nekkoon Ndar ak feneen ak feneen donc amoon na intelligence ba nga xamante ne euh, euh, puso bi ñaw réew mi ba mu doon benn wëñ googu dañ ko war sàmm. te ni nga koy sàmmee mooy waxtaan ak communauté yi di leen déglu di leen jox cër ci politique yi ngay yi ngay yi ngay doxal ba su doon tànn gouvernement bi gis ni nañ ko doon tànnee dina fexe ba communauté yëpp am gis ci seen bopp dina fexe ba diine yëpp gis ci seen bopp du woon ay quota bu ñuy séddoo wante entente la woon pour que ku nekk ci réew mi nga yëg ne réew mi kat jox na la cër te sa doom bokk na ci daje ba nga xamante ne ñu ngi koy dajee pour doxal réew mi mais loolu c'est de l'intelligence politique moo tax Senghor qui était chrétien soo xoolee diine ba mu nekkoon amul woon majorité ci réew mi mais gis nga fii ci ko sëñ Tuubaa daf euh, euh, sëñ Fallou daf ko boot rogganti ko ne Senghor seng sa kaw xool leen côté bu leen ko piis mais ni Senghor def ba am loolu c'est de l'intelligence politique c'est pas de la roublardise du tappale du nafex xel la ak xalaat kon boog nañ déglu communauté yi nañ dégluwaa waa nañ déglu waa Thiès nañ déglu waa Kaolack et chaque fois su élection amee nga wàññi say xob ba pare xob yooyu daf lay permettre une certaine lecture bu tax nga gën a ñawal sa nopp pour déglu lan la la population yi wax à travers leur vote ça aussi c'est de l'intelligence politique mais ki nga xamante ne moo voté contre yow nga dekk président def sa noonu mm-hmm. bul ne dama lay xañ sa vote wëñ sa loxo nangu sa moomeel day tax mu gën a mer. day tax xeex bi gën a tar parce que le fait de dire aux populations participer à la gestion mais en fait daf leen di gën a dara daf leen di gën a jox engagement ci jàppale la jàppale la en approuvant les bonnes choses que tu mais jàppale la en contestant les choses moins bonnes que tu fais ou même parfois des choses bon que tu mais population yi euh, euh, tollooguñu ci niveau ba nga toll ba accepté ko. Mhm. nga ne yow en tant que chef ah lii daal xam naa ne baax na wante ñoragul. Mhm. pour ma poser acte bi naa xaar ba ci kanam. borom kër bu muus sax su yore këram noonu la koy yore. Mhm. rek léegi nga jël benn décision. sa doom ne la déet papa déggu doog d'accorduñ ci duñ la ko wax. mais di nga xam ne ñoom d'accorduñ ci. moo xëy na tuuti pourtant lu baax lu baax la yow óor na la ne lu baax la mais waxtoom jotagul parce que lu ne dafa am waxtu lu ne. dafa am moment favorable boo ko mën a teg souvent réew yi dafay tàkk fekk ñi ko jiite ñoo ko taal par manque de tact et de diplomatie parce que léeg-léeg population ne mais ki ma jiite respecté wu ma mm-hmm. te dafa war sentir que da ko respecté mm-hmm. dafa war sentir voilà dafa war sentir que da nga ko yëg mm-hmm. dafa war sentir que da nga koy déglu moom laa la nekk woon keroog Saint-Exupéry waxoon na ko euh, léeg-léeg ay nit dañuy xool benn mbir mais ñoom ñëpp ñu ngi ci benn étage kii nekk premier étage ki nekk cinquième étage kii nekk onzième étage li ñuy gis bokkul ki nekk onzième étage naka la mën a convaincre ki nekk premier ak ki nekk cinquième daf leen naan vous avez raison fii ngeen toll lii ngeen gis ngeen di war a gis donc li ngeen gis dëgg la à cause de seen tolluwaay mm-hmm. mais kaay leen ñu doxantu nga tey leen ci loxo dugal leen ci ascenseur bi demax ñoom ba onzième étage nga génn indi leen ci balcon bi ne xool leen ñu ne ah ok c'est vrai donc la capacité d'un homme d'État c'est de pouvoir faire ce cheminement avec son peuple mais pour nga mën ko il faut de la patience il faut du tact il faut de l'esprit créatif man loolu laa souhaité képp kuy jiite réew mi kon boog nañ déglu askan bi te teey te dal ci réforme yi ñu jël na askan bi toujours di sentir ne ñii kat lii ñu décidé suñu njëriñ la et ni ñuy xamee ne seen njëriñ la moo ñu ànd ci am na fu nag boroom kër walla waajur war a vigoureux ci ay décision war ci dem ak engagement donte waa kër ga ñu ci mais yooyu dafay fekk mu am une menace qui pèse sur la maison nga xam ne décision bi kat soo ko jëlul musiba la ci askan bi parce que instant boobu sax soo faible ba jëloo ko su musiba bi ñëwee ñu ŋàññe la mais day fekk mu nekk des des mesures graves des situation graves moo tax ñeneen ñi di cité ay capital yi nga xamante ne am nañu statut spécial parce que dañ nekk en situation de crise tolluñu foofu dañu nekkoon en situation de guerre il y avait des ki qui planaient sur euh, le pays ñu mettre la capitale pour protéger ko un statut spécial mais ñu nekkuñu ci crise nekkuñu ci situation yooyu kon nañ bàyyi askan bi doxal nañu bëgg man daal di ma leen di ñaan mooy ñu deltu gannaaw su fekkente ne gëm nañu ne nag li ñuy bëgg a jël nii dëgg la nañ waxtaan ak askan bi convaincre leen kooku aussi ça demande du génie mm-hmm. suñu convaincre askan bi suñ ko bëggee teg xëccoo dina am bañ dina am fan la mën a yegg ci ci sa xalaat bu ñoo defee forcing. Euh, xam nga forcing mënoo prévoir jamais li muy jur xam nga nettali woon naa la lépp sa si ba doon xeexaa picc ba ñëw ci boroom kër gi ni ko waxal picc mu may tooñ muy jël samay yëf mu ne ko ah man di xeexu picc ndax si lu sama yoon mu dem wax fas. fas bañ na ba sama yoon newu ci ndax xeeb na situation moom mais ba picc ñëwaatee si ndax xeexaax moom ñu xeex di xeex di xeex ba daanu ci furno bi furno bi daanu mm-hmm. xal yi tasaaroo lakk néeg bi mm-hmm. néeg bi lakk lakk waañ bi waañ bi lakk ba kër gi lakk ba village bi yëpp lakk mm-hmm. mu ne pourtant waxoon naa leen ko de ay du yëpp ci boppu borom donc situation bi nga xamante ne ñu ngi koy entretenir léeg-léeg nga xeeb ko. jur musiba léegi-léegi nga foog ne situation bi moo grave naa ko faj nga mm-hmm. ne boobu dara newu ci parce que il est difficile souvent de lire l'avenir mais un président de la République on lui demande d'avoir ce génie mm-hmm. il doit moo tax ñu bàyyi ñëpp tànn la c'est un homme d'exception il n'est pas n'importe qui moom auteur bi mu toll war na mën a sentir l'avenir mm-hmm. war na mën a prévoir l'avenir mais luñ koy voilà luñ koy demander rek mooy na bàyyi nopp askan bi et la clameur bi mu koy yónnee mm. c'est un message fort qu'il faut écouter et entendre et su si tenir compte nit ñi dañuy kontaan parce que dañ naan ah président respecté mm. nañu et soo sentiree que njiit bi la jiite respecté na la donte dof nga donte naatu xuuna nga mais mu respecté la mm-hmm. léeg-léeg si njaboot gi dina am kenn ka nga xamante ne naatu xuuna la xel bi wayul hmm? mais su ñëwee du joxe avis si tu es un homme un père de famille responsable looy def da koy déglu doo rek anticiper ne kii naatu xuuna la xalaatam baaxul ay eh, jugeel fay waaye yow amuloo solo dof nga rek mu mer beru te ku mer beru nag mun na def lu ne dof ba gaaño dañuy tukki mu ne leen ah yéen a may bàyyi ci kër gi de yéen ngi dem ci xew ma bàyyi ma fi parce que da ngeen jàpp ne dama mais soo leen fi bàyyee dinaa taal kër gi. yaa ngi mais suñ ko yóbbu ci xew ba. mën mën na yàq xew ba te moom nee na bu ko bàyyi ci kër gi il demande l'égalité et il a raison qu'est-ce qu'il faut faire. yaa xalaat xalaat xalaat xalaat mais moom moo joxe solution bi mu ne yeewa leen ma ci taatu garab gi ñu yeew ko ba mu dëgër mu ne wax naa lu ëpp de <laughs> donc trouvé na la boppam saafara gi. mais nañ ko déglu. Mm-hmm. parce que si njaboot gi la bokk mm-hmm. même su fekkonte ni ñu gën xeebu ci réew mi wala ñu ngi nekk ci kër dof ba ñoo daje ne lii d'accorduñ ci te nekk ay citoyen président na ñëw gi ak ñoom ah, déglu leen ils auront le sentiment qu'ils sont écoutés donc je lui demande d'écouter le peuple parce que luy judd ci situation mënoo ko prévoir mais je devine sentiment de d'insatisfaction d'un groupe social quelconque baaxul surtout su fekkente ne ci capital bi la amee donte ñoom nag ñu ngi leen di jiiñ ne benn manque de satisfaction politique la ñu bëgg a saafara mais gëm naa ne du loolu daal parce que président grand la quand ñu fàttali ni seen émission démb ak tey ngeen di teewlu mbokk yi ñuy dalal Abdou Khadre Gaye njiital ONG EMAD alors dañuy delluwaat démb toujours Abdou Khadre ndakaaru démb boo ko nattee ak ndakaaru fi mu toll tey deltu ginnaaw la ñuy wax wala avancement. Euh, deltu gannaaw nag bëri ci. Hmm. waaw deltu gannaaw bëri na ci. naam ñu ngi rëdd ay autoroute yu fi newul woon waaw naam ñu ngi eh, ay poto ñu ngi réfectionné ay immeuble ñu ngi tabax ay immeuble yu bees wante ndakaaru tey gii eh, di ko particularisé mooy tu as l'impression tubaab bi bàyyi woon moo fi ne ba tey soo koy mesurer danga nga naan hôpital yi fi ne tubaab bee ko fi bàyyi Dantec principal Fann mooy hôpital yi gën a mag ci réew mi sax Hmm? université bi donte ñu ngi tabax ay batiment yu bees ay kii tubaab bi moo ko fi moo ko fi bàyyi woon tali yi bi tubaab bi di dem fi la ko bàyyi soo xoolee sax tur yi ko tubaab bi joxoon moo fi nekk ba léegi te ndakaaru boobu amoon na organisation quand si ñi ko doon ñi ko yoree woon bëgg am une ville capitale euh, organisation boobu moo taxoon ba marché yi dañu doon am heure bu ñuy ubbi am heure bu ñuy tëj hmm? ñu leen di raxas semaine bu ne pompe ya ko doon raxas ñu nga doon nekkoon As Bernard teeru Baye Sow gi kër gi Abdoulaye Diop Matar dëkk kër gi bitim géej gi foofu la pompe yi nekkoon ñuy manq ndoxu géej gi di raxas marché yi di raxas tali yi ah oui chaque semaine tey jii soo booba Ndakaaru setoon na ah non set wicc pluie y avait y avait y avait les trottoirs étaient dégagés amuloon encombrement bi parce que le marché était continue dañu ne am na ñaari marché capital marché Kermel ak marché Sandaga am na marché Tilène mais marché yi dafa am fu mu yem ci marché bi lay yem amul débordement les chaussées étaient dégagées et plantées d'arbres oui fa am na tag ya nga xamante ne soo fa daan jaar ci Ndakaaru c'était des rues sans soleil parce que fromager yi dañuy joxante loxo créer benn arc de triomphe c'était plein de ramage d'oiseaux soo romb picc yi ngay dégg ñuy sab jant bi sax lu mën a dugg dugg bu baax c'était très ombragé l'avenue Lamine Gueye sur toute sa longueur tey sooy doxantu biir Dakar nga xool su ma jëlee Jean Jaurès Lamine Gueye bi gisoo fi garab soo jëlee Jean Jaurès di nga commencé Pétavin nga dox dox dox ba Malick si doo gis garab nga dugg commune Médina dox dox dox ba canal Gueule Tapée doo gis garab yaa ngi yaa ngi commune Fass donc am na rue yi nga xamante ne da ngay traversé ay commune d'arrondissement doo gis garab garab yëpp daanu na amatul garab trottoir yi di occupé ko et donc c'est un encombrement incompréhensible et da ngay am kersa nit ku jugee ci beneen réew bu am organisation beneen capital su duggee Dakar dafa naka la ñuy tuddee ñun daf ñuy xeeb daf naa ñuy xanaa dañu ay doomu aadama parce que nit ku mënul organiser sa dëkkuwaay mënoo organiser dara donc soo xoolee ci côté boobu ndakaaru dafa dafa dellu gannaaw euh, am na benn tali dama ko doon tuddee la reine des rues de la capitale c'est l'avenue William Ponty su 18 heures jotaan foo dëkk ci ndakaaru le Grand Cap-Vert da ngay bëgg ñëw fii ku amoon gan tànk indiwoo ko fii kontaanoo ah nga traversé moom ak moom avenue William Ponty bi yóbbu ko place de l'indépendance bon dëgg parce que c'était c'était tout le concentré de toute la beauté dakaroise de tout l'ordre de l'organisation de Dakar. Dohontou, il y avait, la, la, rue était dégagée, ombragée, très beau, très bien entretenu. waaw soo fi doon dox gars yi am na ñeneen ñu doon tu as l'impression que tu es du marché dans Paris waaw soo demee àndax sa gan ba place de l'indépendance mu xool immeuble yi gis place bi ni mu mel attends su ñibbee am lu mu nettali waaw day mel ni nekkul woon Sénégal et sa faisait la fierté de Dakarois moo tax Dakarois yi di ñu sant euh, kontaanoon mooy ngoon jot ñu solu ba rafet. traverse l' avenue William Ponty. di doxantu oui traverser avenue Lamine Gueye dem toog place de l' indépendance xool jet bi xool fleurs yi xool garab yi jël ay photo après ñibbi si photographe yi fa la ñu doon daje. ah, ah oui c' était c' était le Dakar c' le vieux Dakar bon loolu amatul tey soo demoon sur la corniche occupation anarchique bi am nii amul woon am na au temps du tubaab dañu ne woon la loi sur les quatre-vingts pages géométriques. pour dire que vague bi fa muy dalee soo defee quatre-vingts pas kenn du fa tabax maam Alioune boo war ne la moo taxoon ñu tuddee corniche bi kàkkalam kàkkalam moom ñëpp ko bokk kenn amul droit moom ko parce que cette belle vue de la mer la est une propriété de communautaire ñëpp ko bokk c'est c'est la façade maritime mais yow nga ñëw fatt ko ba cette vue et cette brise maritime nga xamante ni nit ku am stress sa xool xol naqari nga mer fa ngay dem jàkkaarloo géej gi rek sa mer giif parce que la vue sur le large ça apaise le cœur et l'âme hmm? moo tax soo xoolee ci sens boobu sax le Dakar waa pour mu révolter wu dafay jafe. Mm-hmm. mais maintenant boo tax Alioune Diagne Borné ce n'est plus un cap vert c'est un cap béton loolu amatul soo demoon ci plage yi dafa am ay escalier en pierre de Rufisque yu la yóbbu ci suuf. oui c'était ça le Dakar d'autrefois mais aujourd'hui Dakar c'est l'encombrement c'est le tapage sonore c'est la pollution c'est la mauvaise odeur. am na ay étudiante ñu yóbbu woon Canada ñu jàngi ndeysaan bi ñu ñëwee ma recevoir leen ñu waxtaan dañu amoon ay bourse quoi ñu may mm-hmm. kenn ki bi mu ñëwee ndeysaan mu ne ma man daal bi mu duggee sama kër dafay dafa xasaw j'ai l'impression que dëkk bi dafa xasaw bi mu ko waxee dama mer j'étais frustré mm-hmm. ma ne attendez lii la wax ci sénégalais quoi xale bu tuuti ñu bu la Canada rek nga ñëw di wax ne sa dëkk dafa mm-hmm. xasaw mais après beneen visiteur ñëw wax ma ko dama saa saa mauvais Le dernier ami avec qui j'ai causé, c'est un artiste mu ne ma notre ville sent mauvais. Mm-hmm. mu ne donc Dakar li koy distinguer fu mu nekk nii c'est sa mauvaise odeur. mais après parce nga fi tellement que dootoo ko sentir ku jugee feneen ñëw. donc bakken bi jugee ci biti. moo yëg cette mauvaise odeur là mais après j'ai compris. wala mm-hmm. Dakar nous sommes en la 2020 le canal de Fass mm. canal à ouvert. c'est une balafre sur le visage de la capitale yooyu moo jar a wax ñu couvrir ko defar ko c'est un dépotoir d'ordure le canal de la Gueule Tapée couvrir nañ ko mais ça menace ruine léegi day xëy rek pëtëx et on nit ñi ñaata nit dee nañ fa et cetera xoolal du xoolal Blaise Diagne bi canal bi ko traversé kii boobu conduite boobu bi ñu defee élargissement bi ba tey mu nga fa et les gens qui qui qui viennent du dehors ils sont confrontés non seulement à la mauvaise odeur mm. mais ils ont l'impression que c'est une ville vieillissante dafa màgget mm. les immeubles ne sont pas mm. ravalement des immeubles mais c'est dañ ko war a gérer dans les villes qui se respectent chaque dix ans on refait les immeubles mm-hmm. peindre ko harmoniser couleurs yi mm-hmm. on dit sur de telle rue à telle rue vous avez le droit de peindre mais couleurs yi lañ leen jox bii ah bii ah bii des couleurs qui se complètent. Mhm. ñu dëkk rue ba rue bee mais nañ leen ñu def couleur bi mais xool ku nekk tuuti. amul organisation daal mais est-ce que loolu tamit du conséquence su dogo dogote gi ñu def Dakar commune fii commune fee pourtant mënoon mm-hmm. na mënoon na oyof comme ni nga wax sànq yen bi bu ñu ko xëy na euh, ëmb bi bu ñu ko euh, tasaaree ku nekk yenu mu gën a oyof. ci la décentralisation de Dakar na mënoon bon découpage boobu c'était politique hmm? c'était une façon de mieux conquérir pour le pouvoir c'était une façon de mieux conquérir mais mu am na ay commune yi ñu mën a boole Dakar Plateau Médina Gueule Tapée Fass Colobane mën na nekk am na ñu naan sax Dakar yëpp département bi mën na nekk quatre communes bon yooyu c'est des réflexions qu'on ouvrir pour voir décentralisation bi naka lañ koy rectifier naka la ñuy structurer waat et cetera et tout mais même avec les communes yooyu mën na am si les moyens sont la bien sur mais léegi état au lieu continuer nga toppatoo communes yi renforcer leen jàppale population ñu mën a gën communiquer pour gérer mais on laisse aller l'essentiel et on s'occupe de de de politique politicienne loolu moo ñu tardel mais Dakar fu mu nekk nii dafa feebar mu ngi tëdd ci lalam demal ci penc lébu yi penc yi dañ leen waroon di dundal dans toutes les villes du monde soo demee il peut y avoir la ville historique ñu maintenir ko comme tel ñu ne kii c'est la partie historique de la ville c'est le patrimoine on ne change pas ku ñëw da ngay la ville historique mm-hmm. mais si cette ville a des villages aussi on peut bien entretenir les villages mm-hmm. de la ville et les gens peuvent se promener dans Mbott mm-hmm. on tubaab bi ni ñëw oui il des villages le village de Mbott ñu xool naka lañ koy defaree jox ko taaram defar cëddeem fukki penceex ñaar ci biir Ndakaaru ñu maintenir seen xar kanam jox leen une âme un certain dynamisme. Mm-hmm. conserver seen seen seen structuration. témoin de l'histoire le vieux Dakar à partir de la plateforme indépendance dem vers la pointe les immeubles les plus anciens fa la nekk mm-hmm. c'est le vieux Dakar même suñu fekkee dañ ne tourisme bii mu ngi sooxee nit ñi dañuy ñëw Dakar pour dem Casamance wala dem dans les îles du mm-hmm. Saloum parce que Dakar y a rien d'intéressant à voir et à faire mais c'est pas vrai le véritable patrimoine de ce, historique véritable patrimoine bi mu ngi fii. nañ ko toppatoowul toppatoowuñ ko. am na sax patrimoine bi nga xamante ne rey nañ ko dee na complètement les forts historiques yi fi tubaab bi bàyyi woon soo demee blocos bi ñu nekkee xale fa lañ doon fooye lépp tabax nañ ko c'est c'est devenu des bâtiments dañ ko daaneel. y a même des films de Djibril Diop Mambéty yi nga xamante ne euh, tukki bukki et cetera foofu lañ ko tourné woon c'était un refuge pour certains cinéastes parce que am na décor booy soxla mënoo am ngir Dakar. Mm-hmm. ce foofu nga dem lépp rasé nañ ko. soo demee Cap Manuel corniche bi léegi c'est fini am na kenn ñu ngi koy dénoncer temps yi Cap Manuel fa nga doon taxaw tu une vue sur les deux îles Gorée et Madeleine cette vue est bouchée c'est interdit au public cette vue kenn dootu ko amati c'est perdu les escaliers de la mort yi fa archéologues euh, yi defoon pour voir les vestiges préhistoriques dajji nañ ko dajj nañu falaise bi pour pour pour remblayer des parties du port parce que ñi ko dajji xamuñu ce que représente le Cap Manuel pour Dakar xamuñu ce que représente Ngagne pour Dakar xamuñu ce que représente Soumbédioune pour Dakar xamuñu en fait Dakar ils disent Dakar Dakar Dakar ku nekk di xëccoo mais ñu koy xëccoo sax xamuñu Dakar ah oui mais parce que soo buggee gérer mbir da koy xam da koy xam dans sa sociologie da nga koy xam dans son histoire et sa préhistoire ah, da ngay xam ce que cette ville raconte. Mais cette ville a fermé la bouche de ne parle plus. Parce que nos oreilles n'entendent et n'écoutent plus sa voix. Et la ville arrête de parler. Peut-être qu'aussi am na kenn ku mu wax ne mu ngi wax ba léegi ñu ñoo ko mënatul dégg ñu ñoo tëx su dee ñu ñoo tëx nañ dem faju ji mais nos autorités ñoom war ñu tëx comprendre naa ko population yu tëx mais autorités yi ñu war guider bu ñu tëx comprendre naa population yi gumba mais les si les guides sont aveugles mais dañuy dugal ci canal Fass bi wala canal Delta bi souvent ñun et ce serait catastrophique donc plus de respect aux populations plus d'écoute aux populations yow yaay borom réew mi firiwul ne yaa moom réew mi borom kër gi firiwul ne yaay borom kër gi c'est pas le borom qui veut dire propriétaire mm-hmm. responsable lay signifie yaay borom kër gi ça veut dire tu es responsable de la maison mm-hmm. yaay borom réew mi ça veut dire que tu es responsable de la maison parce que ki wax borom kër ak borom réew moo wax ne cini mbooloo mbooloo koy saytu puisque cin la ba nga xamante ne mbooloo bee ko moom te suñ ko yekkee ñu ñëpp ñoo koy kii dañuy décider ensemble lan la ñu bëgg a togg ensemble ñu dem marché ensemble ñu surveiller cin mais cini mbooloo la nga dem marché ndugg lu la neex togg lu la neex yekk lu la neex nit ñi wax la nga ne maa tey non du jur jàmm parce que soo bëggee jàmm nag da waxtaan pas ah, dialogue comme dialogue bi ah. Mhm. waaw dialogue dañ ko daan defee démb ci pénc ma wala ci ëtt ba waaw pas dialogue bu suur pas dialogue ba nga xamante ne ku nekk da ngay ñëw sa ambition mooy je tire mon épingle du jeu wala damay max morom bi parce que dialogue dëggantaan ña fa teewee dañuy fàtte seen bopp fàtte seen intérêt xool intérêt réew mi exclusivement en ce moment c'est un dialogue au profit des populations et ñu élargir ko ba ñu ci war bokk yëpp bokk ci. wante ku ñëwul sa affaire la dialogue amatul il est de ta responsabilité de faire en sorte que tout le monde soit présent oui c'est ta responsabilité si tout le monde ne pas présent mais tu as échoué tu as déjà échoué avant d'ouvrir les pourparlers première compétence mooy est-ce que am nga compétence fexe ba ñëpp teew soo réussir ñëpp teew ñu ne ah yow jàmbaar nga maintenant fexeel ba mettre ñëpp en confiance quel acte tu dois poser pour avoir la confiance da ngay jéggale baal. moo tax su suñu nee duñu baal kenn duñu jéggal kenn mais dialogue mënul am parce que acte boobu ngay posé. te mu nekk acte bu extraordinaire parce que mënoon nga ko posé. te du sa intérêt. moo tax nit ñi ne ah kii kat dëggu na. ci mhm. dialogue bu ñu mën def comme na ko Nelson Mandela defee woon na Afrique du Sud. vérité et réconciliation mhm. mettre les gens en confiance et soo leen mettre en confiance ñu ne kii il est sincère et tu entames le dialogue tout le monde est là il y prend de grandes décisions pour que ce Sénégal-là soit sur un chemin plus droit, sur un chemin d'avenir, d'émergence et de développement. mais su loolu amul rek du am mais malheureusement chez nous on se trop du mandat du mandat naka laay def ba ñu falaat ma naka laay def ba ma perdre nguur gi est-ce que su ma ko perdree bon gars yi du ñu venger wu ci kaw sonnal ma sommal sama njaboot moo tax dans les pays d'Afrique cette question là dañ ko war régler comment on accède le pouvoir yan mooy garantie et comment on quitte le pouvoir yan mooy garantie donc suñu régler cette question là maintenant on règle tout. ñenn ñi c'est par crainte la ñuy. mooy ci yenn affaire souvent et des fois li tax ñuy craindre ñoom ñoo koy poser aussi. waaw ah, il faut que nga ñëw au pouvoir tu poses des actes nga xamante ne tu n'es pas en sécurité. Mm-hmm. parce que je l'ai dit et répété le pouvoir appartient à Dieu ki ñu ko jox dafa war gëm loolu d'abord. yàlla jox ko askan wi askan wi dénkalu ko donc cëru yàlla lañ la dénk mais loolu ñu la dénk puisque dañ la ko dénk dañ koy jëlaat mm-hmm. et soo xamee ne lii ñu ma dénk nii bés dina ñëw dinañ ko jëlaat bés bu ne da ngay xalaat bés bañ koy jël mm-hmm. naka lañ koy jëlee ak ah, ban compte lay rendre mais soo yéegee rek fàtte sa serment fàtte say promesse fàtte ne que mbindeef mi tu te prends pour le divin mm-hmm. parce que il y a du divin en toi effectivement c'est le pouvoir que mais alalam la la dénk. à travers toi si les gens se prosternent ou embrassent ta main la main du divin qu'ils embrassent c'est devant le divin qu'ils se prosternent mais soo ko gisee noonu doo jum mais soo fekkee ne tu es la divinité. Mm. ou tu es le fils ou le bras droit de Dieu ou son collaborateur parce que tu as le pouvoir de faire et de défaire mais si ay jumte rek ngay ngay dëkk ba bés ba nga koy lay ñëw nag te bés boobu du ñàkk. parce que nit li nga xamante ne moo nekk ci àddinaam mooy euh, faiblesse ak dee moo nekk sa kanam moo tax ma ne waa ji keroog kii yoot soo xamoon li nga yoot di nga bàyyi li lay yoot te ñun nit li ñuy yoot lenn la c'est la mort et dinañu dab mais su fekkee ne gëmee nañ ko noonu mais tu vas gérer dans l'humilité dans l'égalité dans l'écoute mm-hmm. mais humilité boobu pour nga mën am ko foog nga teg bët yàlla baa nga gis ko mais foog nga gëm ne yàlla mu ngi fi mm-hmm. mais soo gëmee ne yàlla mu ngi fi mais tu te prosternes une personne qui sa prosterne teg jéem ci suuf fi mu gën a fonk ci jëmmam mu na ko bépp si suuf sukk mais y rien de plus beau qu'un roi qui se prosterne mm-hmm. hmm? non un roi qui se prosterne mm-hmm. dara gënu ko neex parce que da ngay gis ne kii gëm na ne il y a le roi am na benn livre ndeysaan bu ma liiroon bu ma koy liir dama mer parce que la euh, l'auteur a imaginé une université où on forme de dieux bon les le les professeurs dans cette université c'est les anciens dieux grecs ay ñoom Zeus ay Jupiter ñoo fa nekk di forme les jeunes divins alors j'ai dit blasphème parce que kii dafay dingat yàlla mais li ma neex euh, Zeus qui était le dieu des benn étudiant bu curieux Zeus qui était le dieu des dieux bu étudiant bi demee ba fexe dem ba fekk le patron la maître de l'université qui est le patron de tous les dieux mu fekk ko fa ne j'ai vu Dieu mu ngi fekk Jupiter mu ngi contempler benn montagne mu ne ko looy contempler lan moo nekk fii mu ne ko xaw ma ko mais c'est là-bas où se trouve Dieu c'est la fin du livre et j'ai applaudi donc je dis qui que tu sois soo gëmee ne am na ku la tiim di nga mën a ëmb di nga mën a oyof di nga mën dialoguer di nga mën a gouverner kon foofu la ñuy jeexalee Abdou Khadre Gaye ñu lay gërëm amoon mbégte lool euh, waxtaan ak yow ci mbiru Dakar ak tey xëy na coppite yi nga xam ne ñu ngi koy ruumandaat ne bëgg nañ ko ci def mbokk yi yéen tam ñu leen di gërëm ci ànd bi ak euh, Rewmi FM gërëm Diawo Diallo mi fare woon ci machine bi Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kaddu gi ñu dig leen daje dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen Abdou Khadre ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la. jërëjëf man maa leen ameel gërëm di ñaan yàlla mu sàmm émission bi sàmm rajo bi. seen mission bi ngeen war a joué ci wax askan bi ngeen mën ko gëf nu mu gën a rafetee. yal na yàlla yokk sutura. amiin amiin kon jërë ngeen jëf mbokk yi ñu yendoog jàmm.